tey problème bi ñu fi tax a daje mooy problème suñu gétt yi nga xamante ne fii lañ doon jofal suñuy nag suuf si nag daa am nu mu bindoo mooy titre dañ ne titre foncier global moo am au niveau de Touba waaye titre foncier bi yëpp li muy am yëpp dafa am ay villages yoo xamante ne ñoo fi nekkoon ci cosaanu maam parce que dëkk bii mën nañu wax ne Cheikh Amadou bàmba fii la ko fekk dëkk bu dem ba am ñaari téeméeri at te Touba amagul ñaari téeméeri at kon dëkk bi mën nañu wax ne moo mag dëkk bi nag mooy màgg di ñëw di fekk si dëkk yi nga xamante ne mooy village pël yi bi loolu amee am na ci ay jamono suñu maam yi nga xamante ne ay taalibe lañu ñu woon doonoon ay taalibe sëñ Modou Moustapha ñoom ñoo jëloon suuf si jël li ñu seen moomeel jébbal ko sëñ Mbacke Soxna loo jamono yi ñu fiy natt 1997 bi ñu ko jébbalee sëñ Mbacke sëñ Mbacke Soxna natt ko bi mu ñëwee ba fi ñuy jofal seen nag yi ci seen gétt yi pël. fu mu nekk dafay am gétt am fa ay nag bi mu ko bi mu bàyyi leen foofu réserve boobu moo nekk réserve bii nga xamante ne tey moom la ay boromi doole jóg ne dañu koy natt xaw ma dañu koy jaay xaw ma lu ñu ciy def loolu moo indi problème bi ba ñu emprisonné actuellement le chef de village ak euh, benn doomam chef de village actuellement am na lu ëpp soixante-dix ans presque mën na wax ne sax soixante-quinze ans ñu tëj ko ci loo xamante ne dóorul nit saagawul nit xasul nit lan ñu tëj ko ci kaw alalam ci dañ koo tëj ci kaw injustice loolu injustice la dañ koy condamné di ñaan sëñ Muntaxa nga xamante ne mooy suñu yaakaar moom mooy suñu sëriñ lii mu wax ci parce que ba bu ci waxul mën na jur leneen parce que nit ñi boo la ñëw ba fi ñu dëkk nga ne da nga koy nangu ci kaw lan ci kaw ne damaa am doole en plus parce que ñoom dañ leen a tëj ci tëjin woo xamante ne nii d'accord ci suuf si nag ñu leen di xamal ne ñoom ñooñu di ko xëccoo ba ilaa yow mi diin duñ ko bàyyi peut-être xanaa ñu rey ñi fi nekk ñëpp ñëw samp fi leneen wala ñu ñëw taal kër yi jëlee leen fi mais suuf si kenn ko bàyyi waaw. suuf si suuf duñ suuf si duñ ko mos a bàyyi te ñuy interpeller suñu suñu xalifa muy xalif général de Mourides parce que lii ak jaay doole la te sëñ Touba mus jaayloowul doole biñ ñu bi ñu fi fekkee fekk fi pëli yi jàmm ak salaam la dëkkandoo woon ak ñoom ñoom tamit ñu dëkk ak moom jàmm ak salaam ak ak taalibe bu ñu demee nag ba jamono changé ku nekk di ut alal alal jooju noonu nga xamante ne as tuut moom la ñu am ay boromi doole dañ koy nangu ndax lan dañoo bëgg alal loolu ñun duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg waaw. te jaral nañu nag suñu bakkan yi parce que suuf si ñooñu noonu muy ñu ko soxla du ma tudd tur bu yeboo ñu xam ne suuf si duñ ci jot. wala bala ñu ciy jot suñ suñu ko bakkañ yi la ñuy jaar wala ñu sampi kër yi génne ñu Touba bés bu ñu nee dañuy génne Touba nag ci kaw ak ndigal dañ koy nangu parce que dañuy nangu ndigal sëñ Muntaxa lépp lu mu digle ñun Touba fii kenn du fi indi fitina Touba kenn du fi xeex kenn du fi xuloo ci ndigal dëkk boo xamante ne ci ndigal lay demee la ci ndigal googu nag la ñuy demee waaye nag nit doo ko fekk dugal nañ appel bi tey dugal nañ appel bi te xam naa ne ñu yaakaar nañ ne keneen ku ko mën a àtte di nga xam ne kii dañ koo tëjoon ci lu yoon parce que nit ki mënoo ko tëj ci alalam ku la may yow d'accord nga ne kii maamam moo ma mayoon sama maam nit ki kay du maye loo xamante ne moomu ko nit alalam la mën a maye d'accord titre foncier global la d'accord nañ ci loolu ci biir titre foncier global bi lañ nekk mais titre foncier bi fii la ñu fekk waaw te bi ñu bi ñu nee titre foncier bi day am contesté wuñ ko bu ñu taxawoon jéem koo contesté kon coow dina am mais jéemuñ koo contesté parce que ci ndigal la ñuy demee